barakaatu hoo hoo alaaji Seex Mbay oo carré Mantoulaye ci hmm. bundooy <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jàll nee na am na ñu daan. Gaspar Assane Fall maa ngi leen di nuyu. waa bi nuyoo dibi la ku laal dibi. <laughs> yàlla mu nekk dibi mu nekk dibi S23. ak laal ah, baykat si téléphone yi nañu benn petit 500 ngay yokkaat ci xaalis rek. ay doom. petit ay waay lii petit 500 bu bi rek. ma dem yër ak ah, ma ma yër terrain ca Njaxare ak Malicounda ak sax. <laughs> eh bàyyi sa bàyyi sa nag daax terrain de. yee. téléphone day liggéey xaalis léegi de. morom morom téléphone. liggéey xaalis léegi de. da nga da nga jënd terrain téeméeri junni. avec ton téléphone mu nga am ñetti terrain. te dafa tàkk ñu ñu waajal ñu waajal appel bi le 21 ak le 22. ak ak téléphone février incha allah. bu nekkee am na ku ma ci la ngay lijjanti eh, ah, téléphone bu seer. mbay kenn sañ na laay dafa maa invité ci appel bi boo duggee ci photo xam ne wuute kumbalaay kenn ay kii la rek kumbalaay foofu la dëkk. <laughs> kumbalaay. waaw nee na foofu la dëkk de. fu mu dëkk fan bi daal boo ko rombee ci kanam. ah du Cambérène Yoff la kon. alaaji boo awee boo awee téere téeméeri junni jaay ma. <laughs> ma denc fekk déwén. Hmm. Hmm. le 21 ak le 22 bu leen fàtte. mooy appel bi diggante Ngor. waaw Cambérène Ngor Wakaam ak Yoff incha allah. incha allah def leen ko seeni agenda. ah loolu loolu. loolu loolu loolu loolu lu ñu ah, waajal loolu loolu lu nekk ci xol yi la. nekk ci xew éternel. loolu tuuti na agenda. Mhm. mu ngi ci xol yi. loolu dafa mel ni dafa mel ni démb gisee le 11 février sunu événement la. incha allah ah? mm-hmm. le 11 février Sorano incha allah. ah ah, ah kon demal kon demal démb Sorano incha allah. ah démb gisee moo woote le 11. Ah, loolu dëgg neexul ki ngeen ko 11 euh, février jox na. ba pare tamit muy sama date anniversaire korom. Hmm. yóbbu ko démb gise ba pare. loolu dem ci cadeau gi la. loolu dem ci la. yóbbu ko démb gise ba pare mu bëggal xolam ba pare. su ngeen pare da ngeen xool nooy def ak moom ci cadeau le 5 ah. mars. Sa Thiès Reug Reug. événement Sen ah TV la. Sa ah, suñu événement la le cinq mars. Eh, arène nationale lay amee. drapeau ministre des sports Yankhoba Diattara. Eh, beneen bi mooy anniversaire démb gise le 11 février incha allah parrain d'honneur Bougane Gueye Dany ca Sorano la alaaji beneen événement vendredi tey jii nii Ndiolé Tall King Fat Palace Ndiolé waaw à partir de 19 heures tey jii ci ngoon la beneen événement Sen TV moom mooy suba troisième édition gala anniversaire Wali Family ah, vingt heures le suba grand théâtre incha allah ñu ciy rendre hommage sama pap sama xarit bëggoon ma lool sama pap coon moom la ci rendre hommage Thione Ballago Seck non non non déedéet boobu moo mi laan waxal Guèye daf ma waajal daf ma defal ay teraanga bi ñëwagul ah. Ah. loo dund doyul yow xam nga ne ñoo bokk jaaga ñoo bokk coon ah, ñoo bokk jaagaay sama yaay mooy yaayam coonay sama baay mooy baayam moom it dañu koy dundal. ndax la. waaw ah, bugaan moom bu la neexee bul ko tudd. moom est ce que nekkul ñoom rek moom bu ko tudd. <laughs> mais moom it dañu moom fii force la fi. mu ngi féete <laughs> moom it dañu bi moom suñu xëyee moom la ñuy ubbee bu ñu tëj moom la ñuy tëjee. dëgg nekkul bugaan bi de koy tudd nag ci kàttanu borom bi gëy. sekk loo dund doyul faramaareen bi. mooy la waaw léegi man dinaa xewle mu ñëwee renfort. pourtant te pourtant léeg-léeg mu andi ñu fi ay ay kii. waaw. eh déedéet moomi moomi xaaral moomi moomi xaaral moomi xaaral moomi. waaw Guèye waa Teuss bi dafa féete boor. léegi ñoom Fofana ñoom ñoom Cheikh ñoom Mambay ak ñoom Alaaji yëngul ci ñoom ndax ñu jàppale ma ci wax jigey Guèye. waaw waaw. ah. ay ca Nabiir. bàyyil def nii rek. na biir marché kër gi la Mantoulaye bàyyi ñu nag. alaaj nan bàyyi mu sedd alaaj xam nga lan la man la kii rek après. alaaj jàppale leen ci rek jàppale leen ma rek. alaaj jarul kii sax muy sore jàppale leen ma rek. jàppale leen ma rek ngir yàlla alaaj. alaaj jàppale ma ma ci war a bëri fu ne Cheikh jarul jarul <laughs> xoolal jarul di dama lay wax rek jarul di wiiri wiiri ci li nga warloo ak man jaru ko. appel bi mënoo cee nekk caaye ba gën ma ko ci nekk. en tout cas mënta dëgg rek Cheikh. am naa ci ay invitation. Cheikh dama lay wax rek. Cheikh dama lay wax rek. man caravane laa cay def. seex dama lay wax rek man taalibe maam Seydi bii. Ah. <laughs> ma lay wax rek ma wax rek. man mii man mii. kaa caravane laa ciy def. man rakku Khady Thiandoum. madame Mbaye. démb gise dinaa ñëw incha allah. du ma génn guddi de waaye li nga tax ma génn guddi. allah allah Omar Cheikh appel bi sama yëfa. waaw màggal kazu rajab bi nee na le 17 la le 17 février màggal kazu rajab bi. allah allah bismillah <laughs> sama micro bi moo ñëwul woon dañu man la alaaj sunu waa ji sëñ Abdou Karim Mbacke mu baax mi. ñu nuyu yaay booy. yaay puy ñu ngi koy nuyu bu baax. Mm-hmm. maa ngi yëgal ñëpp sama di waajal kazu bi maa ngi maa ngi yëgal ñëpp appel bi. Cheikh tee ngaa a dugg sama géem. mantulaay nag fexe ma yow fexe maa ëpp li si daal man dama lay wax rek man dama lay wax rek. dama lay wax rek Cheikh. bi dëkk bi naqaree moo ma fat de. dama lay wax rek Cheikh. bi dëkk bi naqaree. mbaadu. alaay alaay alaay sa maandu gi dara neexuma ci. Ah, Cheikh war naa ñëw di xëcc di man appel bi nga ne di seetaan. man may amee gan fu waalo waalo yëpp ci man la ñuy dal. Seydina Limaamu mu uuf ma. chaque man xam naa loolu ci yow chaque jour mu dem ci maam Seydi. sama waa jooju. Ah, sama waa jooju. alaay bi man Maxtaar Oh, Marème Paate Laay Maxtaar Jin Laay Laay samay frère yow bi ma Ndakaaru na rek génn Béti Paate Laay bi ma Ndakaaru na rek génn Babacar Paate Laay ma jël Fatma ci wetam may fanaan ci wetam ay weeri weeri weeri na nga rek eh, ma xamal na appel bi moom appel bi dama cee mayul nit tar fatal ay ne ma ko ciy wax ah, ah bàyyi leen ma sama appel bàyyi leen ma sama appel ma ñeenti fan laay am ay gan eh man lay appel bi ko alaaj maa moom ah gàddu danoo woote dañuy wuyu. Fafa gis nga de bu weex taal. ah bàyyi nu wuyu ji. Amady Seck maa ngi lay nuyu incha allah ñu waajal ko. wuyu ji leen. Assane Fall nuyul ma madame Fall bu baax a baax a baax. alaaji. dañuy wuyu ji yaa appel bi ku ci bëgg a ñëw ba man ay tooñ la. seex ni nga jàkk seex dama kuurus benn. 7 mètres jeesner laa jënd 7 mètres. alaaji jëndal seet daa mel ni bu weex xoppati bu weex. kii bu weex. malaaki si weex ak sama gan yi may dalal. Cheikh jëndal dañ ko dalee foos mbaan jàmmi naa lu yoon kër ba mm. gaw ga. laay ni fan yëpp moo lay wan ni bokkoo non ñun perkal la ñuy jënd. Mm. ñun taalibe Seex Alimaam. ndeysaan. jërëjëf. Mm. ndeysaan sànni mbaal mi. xam nga ni ñu koy No, no, no. tey bàyyi laa yow woote. dëkk waa naa leen man moom man moom kaa ma xamal leen leen nag. man tës ak waxtaane ko ñooy sama invité d'honneur. Mm. kër gi moom xoolal kuy ñëw ku ne day tàggu waa tës ak waa waxtaane. ba pare man sama cim bi mooy sama invité d'honneur. doo ñëw. yéen ñi ku ngeen waxul ñëwal du mm. du ñëw. waaw waaw. kon ñi war a ñëw ak ñi dul na ne ci kaw. déet moom moomi kay nag yow bul ñëw. <laughs> Guèye Guèye woote woo. gàmm yi ni muy demee de bu joxe Guèye waxoo lu leer. kon yow Guèye dégguma la. def ko sous réserve Guèye un mois dégguma la. sous réserve Guèye un mois message oo ma. sous réserve Guèye Guèye Guèye ngay ne ak fu ne nga teg fa sa tànk bi te Cambérène gi jege lool ma am événement nga war ma ñëw tibb tànk. yow ka ngay tibb tànk di màggal fee mu ne. Alaaji yow mm-hmm. Cheikh. Mm-hmm. dëkk Palais rek màggal la. <laughs> wuyu mantu ci woto bi yow tibb tànkam bis à boo yeewoo. Mm. léegi kay tibb sama bos. maa la wax lii fekk si ma Cambérène génn ma nga jaar ci ma <laughs> a bokk. man damay daa woote na ku wuyu rek. ah ku nekk na man mi di <laughs> yow da ngay da ngay ganale. déedéet ah, Cheikh invité ñu naan parce que invitation mantu rek lañ ko. ndeysaan Omar Chouba nee na mi ngi koy waajal bu baax a baax a baax ndax man. Hmm. incha ah, allah nañ ko waajal baax ñu ngi ñëw ci sa rubrique kii nee na dafa fàtte benn ordinateur ci benn taxi mu jëlee ko cité douane ngir mu dem Daaru Xaam intersection Baye Laay démb vers 18h30 marque HP couleur bu grise ci benn sac bu hmm. gris. bu am souris sans fil. 77 649 15 15 moom mooy numéro bi nga xam ni euh, mën nañ ko ci euh, daal di euh, woowee. kii moom nee na ay papier ci turu ay Dakar dañu koo hmm. for pièce d'identité diplôme am hmm. diplôme bagam ak convocation hmm. examen pour le 5 février école nationale sanitaire bu ENDS donc bu dee ay Dakar mi yaa ngi déglu. say pièces ak say convocation ak yëpp mi ngi ci 78 205 90 64 wala 78 2 ah, moom la benn numéro la 78 205 90 64 ay ca foofu ñu soobu. Oh, man kii moom man tey laax lañ mandil di. nga lax gi day day dagg ñor de. lax gi laa doon seet mandil ma nëtëri laax. laax ma nëtëri bi du ngalax. waaye dama ko mélangé ba pare. mbay nuyoo. ah bisimilah damaa yëngal bi waaw xam nga kii ma. ñu ngi nuyu ñëpp. Mbaye Karim. ah maa ngi siyaar. xalaat xalaat maa ngi lay nuyu. Ah, la la la saa neex na naaja rek. <laughs> xanaa ma def dalaat Mhm. ñu ngi sant bu baax a a man damaa doon xaar nga ma jël ma jël boobu laax bi baadu. ku nee na ma drapeau bu mag ngay def sa bopp koñ ku ñëw xam ne fi nga dëkk. <laughs> ok dëkk de lii nag mooy invitation bu rëy ah. ah waaw ndeysaan maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Tafa sama xarit boo xam chaque jour ndeysaan mi ngi ak man. ay ca foofu la ñuy déglu de bisimilah. maa ngi nuyu bu baax Pa Mhm. sama bàyyi la bu dëkk Malicounda Bambara. bu baax bu baax a baax a baax Malicounda Bambara Malicounda Bambara. boo boo boo boo wàccee péage bi dem Saly. Mhm. biir Malicounda Bambara ngay jaar. sama dëkk la mooy ville boobu noonu. Malicounda Bambara dëkk bi ma foofu fa am nag bàyyi. waaw am na jëm. tarkal ba ma bëgg Baye Cheikh. dama laxas rek di tuur ay xeewaay. dundal papa dundal. waaw loolu de mooy mbëggeel. am na yàlla guddal fanam. ñu ngi yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin Boubacar Faye Guinée Boubacar Faye Guinée suñu soppe la moom it. ma nga wax sa Guinée la dëkk. Boubacar Faye Guinée suñu soppe la ñu ngi koy ah, nuyu. dëkk boobu rek laa bëgg a dëkk fan. amul magam. Malicounda dëkk boobu amul magam. foofu rek laa bëgg a dëkk de. amul magam. nuyul ma Aïcha bu baax madame Faye Boubacar Faye dëkk Guinée. xel doon sama dëkkandoo rek. incha allah. dëkk naa fa de. waaw dëkk naa fa de. maa ngi fay wut terrain bu yomb. maa ko amee bu terrain bu yomb am ko moom. góorgóorlu <laughs> dëkk fa rek. Ah, alaaji terrain bu yomb mën am de. <laughs> dimanche 5 Kër Massar en face terminus ligne 54 bi. jaajëfal bu baax a baax Ibrahima Mballo ay <clears throat> ñoom démb fa nañ ne woon ci jamonoy kan woon. dafa baax di leeral ci jamonoy kan woon. ah ñoom de dañoo jot jot nañoo jot ba ne dañuy tabax ay mbir fay ca te mbir ma dara sotteeku ca alaaji ci jamonoy su fi glaadi ma mi men xam nga ñoom. mooy gars yi jëndoon ay presse à huile nal lay kii gerte ga ñuy nal pour def ko. machine laakal ma ma nag ana mii nag jënd machine nu ñoomit ñoo jëndoon tricycle yi alaaji ne dañ koy yóbbu Kédougou. waaw man moom xaw ma nag ay tricycle lan lay def Tambacounda ak ay Kédougou mbay. ci ñoo xam ne mine ak géologie fay leen bor yi ngeen am amee ngeen dem jënd. transport bi dem beeg dikk. Hmm. dem beeg dikk. te mhm. ñoom ñoo ñëwaat ak sëñ bi Diallo daaj ba ba léegi. ndaxte xam nga yu yoon day tere. bu fekkee dafa jëm ci loo xam ne liggéeyum état la. waroo fay tant liggéey ba yeggu. Mhm. bu dee infrastructure la la ngeen waxaale lépp te d'accord ca ci anam yi mu war a doxee ñu matale ko. Mm-hmm. alhamdulilah ñu doog a xool nañ lay joxe sa moon yi. Mm-hmm. nga dóor sa poos. te daal bu dee kër gooy tabax. goo xam ne ne état beeg moom noonu kazaalika alaaji clé amiin amiin jeex na su boobaa. loxo si poos. jeex na ñu doog xool nañ lay fay. beneen bi di alaaji ñoom dañoo ñëw ne dañuy taxawal benn unité gravimétrique mooy lu jëm ci wàllum saytu suuf ak ñoom seen. waaw waaw waaw. lépp ci mbaas mi. wala fi wala xew bu xam wala xew bu weex wala xew bu ñuul. c'est c'est c'est bien alaaj. Eh, jolof. <laughs> alaaji ñu ne daraas sëñ bi Diallo jël soixante treize millions joxe. moom Diallo. ah waaw. après Diallo la. Ah. alaaji tabaxal ma. tabaxagaloo ma fay la nga war a tabaxee. eh <laughs> fi xaalis amee nag. déet même fa xaalis amee. xaalis yëgul nag ci wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla nag ci ci ci ci ci ci nag dëgg dëgg dëgg dëgg. am liggéeyal ma rek jox la xaalis. alaaji kuur nee na la gën a doy waan moo di ne. matériel ba jënd nañ ko ba teg. waaw matériel ba war a dem ca unité ba mooy bërëb bañ fa war a amal liggéey traitement beeg yooyu. waaw mais matériel ba ñi jënd nañ ko ci lu tolloog cent dix neuf millions ba teg tamit. waaw yoo kay xanaa balaa ngay jënd matériel. day fekk ne. liggéey wax dëgg yàlla fo muy dugg ak fo mu jëm nopp ba pare comme bërëb ba pareegul. alaaji ñu delloo ko fournisseur ba ne ko dencal ba pare ne ko nag defal déclaration sur l'honneur maanaam mooy nga reconnaître ne jox nañ la lii ci lii la jëm yow yaa ko gàddu te bu waxtu ba jotee it ba tey baax na alaaji <clears throat> soixante treize millions maa ngi seen njàngo seen <laughs> njàngum école moo xam pexem te biray loolu loolu bokk ci cours ah xam nga grand royal bëri yi euh, seen école formation yu bëri xam nga grand royal da doon wax mu ne l'école où nous amenons nos enfants tuera en eux ce que nous aimons <laughs> lu ñu gën a bëgg dina ko rek mhm. ñu ne tubaab da lay de convaincre sans avoir raison. moo bon. moo tax njàngum tubaab baax la de waaye tàppale nga tamit. xool dafa naa loolu tubaab di wax même l'eau en soif <laughs> même l'eau en soif. laaj. Hmm? da doon dégg ay ay expression yoo xam ne da ngay ree ba ko jotee. léegi. ay je le poisson aime l'eau xam xeet yooyu doon. tu es la mère de mes enfants. ah alal. jamonoy waada daal. obligé. baraay te du mbax. ay baal laal. jamonoy alaaji léegi kuur jaaxle ne léegi sëñ bi Diallo xam naa mbokk ñoom Amadou Wure Diallo men très bien xam naa ñàkkul ne ay mbokkam la xaj na looloo tax mu jëndoon ay tricycle ak ñoom seen pour mën leen a yi fi alaaji kuur laaj ko mu ne leen boo leen gisee loolu am c'est parce que dañoo woote gouvernance bu Kédougou ne gouverneur ba utal ñu terrain bu ñu mën a defee mbir ma dégg nga Alaaji Seex. Mm-hmm, maa ngi dégg. Seex daa oh, yi xaalis yi jaar ci seen loxo ak ni koy def. Ah. dégg rek nga ci am de. bu jaaroon ci sama loxo bii. doo ko de. Oh. doo ko naa ko ci alxuraan du ma waaye senegal yi ñu koy bu leer moo ko doxalee nii. ni ñu koy doxalee nii bu leer moo ko. ah yow it di ñu caaxaan. Ah, day ah, dafa neex. alaaji gouverneur nee na woote na fii sous préfet Djibi Diallo woote na commandement territorial way nangam ak nangam nañ ñu utal terrain nañ ñu utal terrain mais alaaji waa ji nee na yëf ya ñoom seen ah bon idi woon kër Songo moom ku mu Doudou Diagne. kër Songo. ah daa demoon kër Songo. Ah, mais ça c'est lui j'étais à kër Songo ton village j'ai même passé chez vous saluer la maman. yal na yàlla fayal nga def. def na lu rafet def na lu rafet. mais bu baax bëgg xaalis. noonu la. suñu yaay jooju ñu ngi koy ziar bu baax. noonu la yàlla yàlla guddal fanam. maire yi de laaj maire yi gis na ci ku ci bëggul xaalis. waaw ma jaaxal te boo leen ko joxe ci kër gi lañ koy delloowaat. dëgg la ci kër gi lañ koy delloowaat. boo leen ko joxee ci kër gi lañ koy delloowaat. da bu bu xaaju guddi la naan ko ko ko aaye suba nafa gi nafa gi nafa gi yaa booy caméra lay wax. caméra ci la xaalis bi ne. ci la téléphone bi ne. maa la wax li maa la wax li. ne sofee aaye. buñ nee fatal ma sama satala gi. sofi gàddu satala gi dugg ak moom ci biir néeg mu ne ko. mu suba yaa yaa aaye loo loo fas toog. nga ne maafe maafe du diis. comme ba xam mu tooy rek xaaral ma jox la nga doon li jënd jënd daal di jël deux mille jox la noonu la def loo leen jox ci kër gi lañ koy delluwaat wala nga ñëw wala nga ñëw jékki-jékki ñëw weekend nii dóor leen benn vingt mille vingt mille yooyu duñ ci lekk dërëm day woo da danaan ni Ousmane kaay mm-hmm. Ousmane ñëw toj na toj na ñaari junni yi wallaahi joxal sa impaañ joxal sa impaañ. faama ñaar téeméer ne ko Mansour Diop ko ko fi jox bi mu ñëwee. non non ayca foofu. day cité. Ah, jeexal ko. Ah, damay jeexal. ayca Mansour Diop la ko noonu hmm? ñu koy séddale mu jeex. régula régula ñi dañoo baax. mag ñooñu nag boo leen xaalis réew mi duñ ko def nii. foofu dikkal. lu ma wax am na sens. lépp nga ca lafu lépp nga ca lafu sër ba. billaay a jubal. cey mag ne. jamonoy xoos goro. alaaji. yos waaw pot meew kii yooyu nañuy daj. pot na ko <laughs> bët ko. ndeysaan ci histoire moo yàgg ak Sénégal. histoire Sénégal bokk ci lii na xam ne daas ba def na ko. alaaji léegi nee na comme amuñu terrain te nag dañ doon bañ ñu tëj budget ba mm-hmm. nee na looloo tax mu jël xaalis ba jébbal waa mm-hmm. léegi nag kuur nee na nangu ne ne moom sëñ bi jàllu ne kon joxe na xaalis ba loolu kenn werante wu ko te it bokk na tamit ci li nga xam te ne nii gën na ko dugal moo di ne kuur nee na xam nga facture d'avoir mooy yoreel nga ma mm-hmm. nee na ma loolu directeur société commerciale bii di groupe ISA def nee na loolu bokk na ci luy tax ñu duut baaraamu tuuma moom daas bi léegi nag kuur nee na dana ma jeexaluwaat <laughs> waaja nañ ko yóbbu te kalaame ko ca kanamu yoon. oh nee na ndaxte soixante treize moom <clears throat> doxalin nga tey na xel. joxe na ko ci anam gu do jaarut yoon. te nag comme du bëggoon loolu la ndëm. nay leer saay nay leer. saay hmm. ah, moo tax nag na dem ca kanamu yoon leeral ko fa moom ak juge ba maa fi jaaroon à lundi incha allah. te coow li moom waxi million rek la. Ah, kese ak i milliard kay ak i milliard. lii. yal na yàlla dolli sutura. CDC yi daa war a leer. wallaahi. mbiri CDC yii dafa war leer nañ. jëy yàlla alalu réew lañ la jox. Hmm. wërsëgu réew lum ñu jox la ko. laaj moomi nee na mi ngi ñëw dal seen kaw. na gaaw yéen ñi des. ah. Seck nee mi ngi ñëw dal seen kaw. nekk ñoo ngi nii toog te bu ko waxee nag da koy def nag. nekk ñoo ngi nii toog. nekk na ñëw noo noo noo kaas bi. dëgg du la la dëgg la. dëgg neexul dëgg neexul mi ngi ñëw nee na. de du ko waaj bàyyi bàyyi leen jàmbur. lu baax kenn du ko waaj. waajul waajul dara. waajul dara. man nag turoo laa bëggoon xam kan moom. fu mu dëgg neexul parce que tur boo gis daa am taarix. dëgg neexul waaw man man foofu nag te foofu da ciy dëgg neexul ko teg nag dëgër na. ah, ah, ah na yàlla doolu ñu sutura. alaaji moo dugal ci gàmm boobu nag. dañuy dem Grand Yoff. Grand Yoff. suñu papa imam ji nga xam ni démb tribune ñëw na ci. te it ci la tribune xëyaat. Mm-hmm. Alaaji Turbine dafa bindoon démb ne réeram gi dafa tee xel xel yi ñaaw ci lool sax lool démb nag ci digg bëccëg lañu fekk néewu suñu maam wala suñu pàpp imam bi ci bassin ba nuñ ko tuddee foofu sax zone de captage alaaji ma ngay flotté dafa dëpp maanaam kanam gay féeteeg ndox bi ndigli kol ga mu yoroon mi ngi ci ñu takk libération ne montre dañul jaaro dañul mbaxana sax sunu tonton bi nga xam ne moo toppoon ci moom ci jumaa ja nee na dañul lañu seetlu rek mooy yëre ba mu njëkkoon jiital moom nekkul ci moom gis na nit loxo yi am nay brûlure ay lakk-lakk mais ñoom ci seen xalaat bokk suñu pap ji topp ci moom ci jumaa ja nee na ci xalaatam acide bi am ci biir ndox mi moo ko waral moom loolu la wax état bi nga xam ne kanam ga nekk ci na ci nag xamuñu ko parce que dama njortu ne fu kanam dëppoo fu loxo lakkee kanam gaa war a gën a lakk mais na am na beneen yéenekaay l'observateur ne koor bi dafa nekkoon ci décomposition bu doy waar libération ne ba fii amul fenn foo xam ne enquêteurs yi taxaw nañ fii ne lii moo waral faatu gi maanaam euh, pas mobile sax mais parce que pour mobile da ngay xam kan moo def hmm. mais xamuñu moom moo def xamuñu dañ ko ko def xamuñu accident la xamuñ ci dara ba fii mbir mi toll hmm. Hmm. mais li leer ba leer mooy ba ñu constaté corps bi gisuñu ay blessure amul gaañu gaañu amul gaañu mm. aussi dëgg dina ko dëggal ci tës bi léegi ah, ah. ndax nee na frère am wax na nee na amul liñ naan dañoo dagg bopp bi amul cëram dara manqué wu ci dara ki nga xam ne nag moo topp ci moom ci jumaa ji mm-hmm. moom la ñuy déglu mm-hmm. nañ ko déglu nag attentivement mm-hmm. suñu paree ci moom ñu déglu frère bi. ayja asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu qaala taala faskuruni askurkum waskuruni wala takfurun yaa ayyuha allazina amanu istainu bi sabri wa salaati إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل سبيل الله أمواتكم بالأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته ولكن يعترون صدق الله العظيم mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen jaare man maa ngi tudd Cheikh Ahmad Tidiane Ndeng dëkk fii si Grand Yoff quartier Darou Rahmane 1 toppoon ci imam rapide Cheikh Ahmad Tidiane Tall mi nga xam ne moo fi bàyyi ko. Mhm. waaw d' accord imam euh, maanaam est ce que mën nga ñëwaat ci naka ngeen doon nekk seen nekkin ak euh, ak euh, ak imam bi fi jógee ak maanaam xew-xew yi nga xamante ne nii moo fi xew. nekkin bu rafet nekkoon ci jumaa ji rafet dañ nekkoon ci yàlla bi nekkin boo xamante ni nekk mag ak rak la ñu ci jumaat yi amuñu woon benn xarma yàlla ci jumaa ji du man du keneen wax dëgg yàlla nekk mu rafet lañ moom it mu féete ñu mag yiir ñu aar ñu waaw loolu daal lañ ci jumaa ji mu nekk lu rafet nag. d' accord est ce que mën nañu xam kañ la gëj a jiite si jàkka ji euh, ci jumaa ji maanaam ak euh, demam bi est ce que mën nga si ñëw demam bi noonu subitement. waaw demam bi mi yàlla mi yàlla mi yàlla mi ñuy def li mu ngi jiite lundi altine hmm. takkusaan moo jiite takkusaan li jiite takkusaan ba pare moo jiite wasifa bi wasifa ba pare mu dem këram bi mu demee këram mu toog ko ba ci yàgg mu ne soxna maa ngi seet sama rakk ci marché Grand Yoff marché Grand Yoff ak seen kër soriwut kenn du ko dox cinq minutes mhm. euh, mu dem tuuti jabar ji daal di woo rakk ji ne ko sa waay di mi ngi ñëw imaam mi ngi ñëw yow mu ne ko rakk ji ko waa baax na takk bi mu toogee ba ci yàgg moom ñu tax mama taal bi mu toogee ba ci yàgg gisul mag ji ñëw mu daal koy woo téléphone ne ko foo nekk mu ne ko maa ngi ñëw mu ne ko waa baax na mu toogaat ba ci yàgg mu woowaat ko ne foo nekk mu ne ko maa ngi ñëw yàgg affaire bi ñu xaw a jaxle parce que diggante seen kër ak Marché Garage kenn du ko dox cinq minutes moom mu bu ko dox ay waxtu presque toog na ba vingt deux gisu ko mu woo ko téléphone téléphone bi fay muy lëndi ñu fanaan fanaan si wul ñu gën a jaxle nag dañuy xëy ci suba gi ñu dem déclaré ko police gendarmerie ah waaw ngeen déclaré bi ñu defee bi police gendarmerie gendarmerie ñoom tam ñoom tamit def seen seen seen seen seen seen ko localisé nañ ne nañ ne moom génnul zone de captage. loolu la ñu wax génnul zone boobu parce boobu gisagu leen téléphone bi. boobu gisaguñ boobu téléphone bi boobu téléphone bi mi ngi si mi ngi si wàcce mi si moom te boobu téléphone bi dafa fay. dafa fay les gendarmerie bi ñu ko localisé dañ ne ñu ngi ci zone de captage. waaw. ñoom sax si benn overte la ñu waxoon fale na. Mhm. ñu dem ñu ànd waa koñ bi génn dem seeti ko wër ku ne. dañ demee si overte si overte bi dañ ne dañ dañ bañ ne ñoom duñ fa dugg. parce que am leen am leen autorisation. Mhm. ñu dem jëli commandant. commandant commandant moom mujj ñëw ànd kenn ci ñun ci ñu mhm. dugg si biir mais bi xoolee bët gisuñu ko. waaw ñu daal di génn naa ñu ñibbi si. waaye toujours tooguñu ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy wër ku ne daal ñu ngi koy wër. ñu ngi koy wër. fu ne koy wër tey ba tey bii ñu doon xam ne euh, am na ñu ko gis fii ci zone de captage bi man sax bi ñu ma ko waxee damaa yaakaar sax dañu ko gis rek jàkk ko di ko indi waaye man bi ma demee doxal sama bopp ba ci zone de captage ba ci ba ci bassin bi man maa ko gis kenn mayu ma kenn waruma maa ko gis sama bopp biir ndox mi d' accord d'accord mhm. waaw continuer continuer ba ma ko gisee ba ma ko gisee ma fa dafa dafa dëpp dafa dëpp ginnaaw gi féete kaw mais nuuruwul ginnaaw gaa ngi fee ginnaaw gaa ngi feeñ dara fekk policiers yi man nuyu leen waxtaan ak ñoom présenté wu waat xaw si sappour ñëwgut waaw ah, bi sappour ñëwee ñoo def seen affi seen ñoo def seen seen pexe ba génn ko li ñu ko génnee naa ne loxo yi dafa ñor ñor maanaam lakk dafa lakk waaw. lakk lakk bu mel ne safara. dafa lakk lakk safara c' possible nag c' possible c' est normal parce que. parce que comme ndox la ndox bi acide la. Mhm. foog nga bu fekkee dafay yàgg foog mu lakk ko. Mhm. loolu c' loolu c' normal. mais nag euh, rumeur yi bëri na ñii naan dañoo dagg boobu ñii naan dañoo def lii c' est faux loolu dara amu si. Mhm. bopp bi mbaxana ba mu soloon sax mi ngi si bopp bi. Mhm. kooku kenn nati mën naa ko gis sama bët. ok kaala bi ñu ne kaala bi ñu ne da koo dañ koo ta dañ ngeen fekk ñu yeew kaala gi si ndigg bi loolu tamit mën nga koo. firndeel taali bi moom daf ko takk si ndig bi mhm. taali moom gis naa ko moom daf ko takk si ndig bi moom mhm. waaw taali bi moom daf ko takk si ndig bi moom gis naa ko aussi d'accord waaye cër moom dara man ko moom dara ko moom d'accord léegi yéen finalement maanaam lan ngeen si sonné moom dafa dem dugg ci bassin bi wala dañ koo dugal ci bassin bi man de man de sama akulaay taala laa wax du ma wax lu ma xamul waaye doo ma ne man dañ ko faa dugal mhm. man sama war bopp gëwuma ko gëwuma ko hmm. man sama wàll boobu gëwuma loolu man gëwuma dañ ko faa dugal hmm. Hmm. waaw kenn ku nekk nag am nga sa ngëm-ngëm di xalaatee nii di waxee nii waaye man gëwuma loolu man gëwuma loolu d'accord euh, maanaam dafa am man maanaam euh, maanaam imaam moom dafa amoon foofu ay noon yoo xamante ne am ngeen njortu ci bu ñaaw ci ñoom que ne mën nañ ko def lii ñu koy def wala boog rumeur bi ngeen déggoon ci commencement bi que ne ci bërëb boobu la nekk ngeen dem fa leen fa loolu noonu nag nga ko mën a jàngatee en tant yow mi nga xamante ne nii yaa nekkoon ak moom. man de wax dëgg yàlla bu amee noonu it xaw ma mu jàppanteel ci jumaa ji ko. bu mhm. fekkente ne am na ku ko mere xaw ma ko. moom wax dëgg xaw ma ko. d'accord léegi fu mu nekk nii moom ana da ngeen jot ngeen koor bi ba denc ko. wala actuellement jël nañ koor bi mi ngi hôpital surtout. Mhm. waaye dañuy leen dañuy def autopsie suba bu ñu jëlee jëlee bu ñu defee autopsie ñoom dañuy wax qu'est-ce qu'il y a lu xew. Mhm. waaw foofu daal lañ toll. fi mu nekk nii famille bi si ban situation lañ nekk. situation bu metti situation bu metti situation bu difficile. parce que bu ko daan nekk sa kilifa jékki-jékki gis ko mu dégg génn gaa génn àdduna génn bu metti vraiment dafa dafa triste. dafa triste man sax man mi nga xam ne maa sosanti moom rek. kenn gënu maa jaxle kenn kenn gënu maa jaxle. d'accord d'accord waaye daal euh, ginnaaw bi ngeen ko fekkee ci bassin bi yow mën mën nga firndeel nga ne maanaam moom amul benn cër boo xam ne manqué na ci moom. lu dul loxo la kooku mën naa ko mën a waat benn cër manqué wu ci moom. du baaraam du baaraamu tànk du baaraam loxo. du bopp bopp sax am na ñoo xam ne boo nee nañ bopp bi newul ci moom waaye c'est faux loolu amul. d'accord léegi nag. Euh, man jot naa jot naa benn benn vocalu rakam nee na moom dafa jàpp ne maanaam dañ koo boom loolu noonu yow yow dañ koo boom dañ ko boom. waaw. waaw kooku xam nga mooy li ma la rek kenn ku nekk na ngay kenn ku nekk na ngay xalaatee. Mhm. moom njortam njortam la am njortam la am mais amu ci lu ko leer. mais daal quelque soit alpha yéen bëgg ngeen maanaam li nga xamante ne nii mooy yoon mu leeral mbir mi ba mu. waaw yoon moom na def liggéeyam. yoon moom na def liggéeyam lu ci war nañ ko def. Mhm. waaw yoon moom na def liggéeyam lu ci war nañ ko def kooku moom kooku moom ñun ñëpp ànd nañ ci d'accord nañ mhm. waaw waaye man daal man daal gëwuma ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko rey man gëwuma loolu. d'accord bu ko weddi nag dama ko weddi na waaye man gëwuma ko. d'accord. waaw parce que man euh, jullit jullit laa damaa gëm yàlla. d'accord euh, est-ce que mën naa xam waxtu waxtu bi nga xamante ne nii maanaam moom la demoon moom la ne day dem euh, seeti rakam bi ci marché Grand Yoff bi ban waxtu la exact. parce que normalement ay dix normalement ay dix huit heures dix huit heures demi. dix huit heures dix huit heures trente. dix huit heures dix huit heures dix huit heures trente normalement. d'accord te diggante këram ak marché Grand Yoff matul cinq minutes de marche. kenn du ko dox cinq minutes moom su ma dëkk bu fekkee yowoon nga fi tey fi mu dëkk ak marché Grand Yoff soriwul. diggante këram ak marché ak këram ak bassin bi benn yoon la. non du benn yoon diggante këram ak marché Grand Yoff ak diggante këram ak bassin du benn yoon. parce que diggante këram ak marché Grand Yoff boo boo génnee këram da ngay dugal tout droit pour dem marché Grand Yoff. Mhm. mais bu dee këram ak bassin bi da ngay wëññeeku. mais ni ku jëm front de terre door a dem ci bassin bi. d'accord këram ak këram ak bassin bi am na distance kon bu xaw a bu xaw a gudd. këram ak marché Grand moo gën a jege ak këram ak bassin bi. te bokkuñu yoon tamit teg bokkuñu yoon bokkuñu yoon bu teg fii. ok te moom daana dem lu bëri ci rakkam boobu noonu di ko seeti. waaw daana fa dem di ko seeti daana dem di ko seeti parce que rakkam bi xaritam la. d'accord. rakkam bi xaritam la. d'accord Imaam sa kàddu gu mujj lan la. ah xanaa di di leen jaajëfal di ñaan Allah subhaana aji dem ji yàlla ko yàlla yërëm xarit àjjana yàlla ko yërëm rek njëggal mboolem ju la ñàkk a fekk ñoom fekk yëpp. léeg-léeg di leen jaajëfal seen ay seen liggéey bi nga xam ne moo leen nekk yàlla leen ci yàlla yokk si daraja Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf Imam waaw lañ ko gis euh, zone de captage ci biir bassin yi waaw foofu lañ ko gisee parce que temps yëpp ñu ngi ko doon wër mais localisation yi foofu lañ ñu joxoon mais wër nañ dëkk bi yëpp mais finalement zone de captage dañu mujj euh, trouver corps bi ci biir bassin yi te corps bi niñ ko tiwee dañ ko dugal si ndox bi jël kaala bi takk ko si ndigg bi waaw noonu lañu bi ñun waaw kon ci biir que mën nañ jàpp ne moom dañ ko faat. waaw man loolu laa jàpp loolu laa gëm dañ ko boobu mhm. man loolu laa jàpp te loolu laa gëm dañ ko boobu mhm. parce que déjà niñ ko fekkee ci biir ndox bi kaala bi dañ ko takk si ndigg bi. Mhm. waaw dañ ko takk si ndigg bi te en général nit buñ lay boom noonu lay demee waaw noonu lay demee waaw te grand boobu la soloon ak jiital bi jiital bi eh, dañ ko sumi jaalaaba bi la dese ñu jël kaala bi takku ko si ndigg bi grand boobu gisaguñ waaw man boom laa jàpp man waaw lii ay loxo ñoo ko def man boom laa jàpp mais euh, dafa mel ni bu muy dem aussi euh, ay euh, bi mu ngi xew lundi bi mu julee bi mu jiite kii takkusaan bi ba pare ba woo si ko mu jóge si jumaa bi ñëw si kër bi tàggoo ne day dem marché bu mu génnee si sini garage bi garage école morfal bi ku ne xam na ko grand foofu la jëlee taxi bi nit ñi gis nañ ko xam nañ ko mu dugg si taxi bi ñoom dañ jàpp ne rek day doxee soxlaam boobu lañ ko gëj a gis nag mais bi ñu demee ba ay dix neuf heures vingt heures ñu ngi koy woo mais soo ko woowee da ngay naan maa ngi ñëw maa ngi ñëw man loolu moo tax sax parce que borom da lay naan maa ngi ñëw si doo ko gis ba vingt trois heures zéro heure nag si la portable bi fayee kon man otage laa jàpp léegi ko boobu man loolu laa gëm loolu laa jàpp waaw fu mu nekk nii euh, police ak sapeur ñoo nañu dafa mel ni ñoom ci enquête parce que bi ñu ko trouvé corps bi de captage police ak sapeur police dafa ñëw woo sapeur ñu ne ñun ñoom lañ taxawee fee ñu leen ñu taxaw police def liggéeyam sapeur ñëw génnee ko dugal ko ñu yóbbu ko man de wey naa laay yoo de dem nga bay ma man de wey naa laay yoo de wetal nga ma Boubacar Gueye mi ngi am 10 ans ah, mi ngi dëkk Rufisque dafa réer depuis 3 mois yaayam Aram Sène papam Modou Gueye 77 851 14 04 ñu woo ko ci euh, euh, numéro yii nii euh, doy na waar métti na métti mm-hmm. rek lañ ci mën a wax ndax xam nga tàqale waajur ak njabootam. Mhm. wala it waajur tàqali ko ak njabootam ci coobar suñu borom ndax dama jàpp ne. Mhm. lu nit mbébét wala mu nar ko dafa ànd ak suñu borom. ànd ak ndogalu suñu borom ba. Mhm. donc kilifa gu toll nii euh, ñu joxe ko cër ca gox ba mu dëkkee nii xam nga laataa muy réer moo mujj jiite tàkkusaan rek ndam la ci nit. donc liñ ko mujjee seedeel mooy jiite na julli wasifa ga pare tàggu de dem kër frère am. Mhm. donc kooku noonu maanaam sede mu mbaax lañ am ci moom. Mhm. laataa ñuy wax leneen. Mhm. parce que jumaa ja lañ ko mujjee gis après këram. donc euh, bu dee dañ ko ko def alaaji day wone encore une fois ni kenn nekkul waaw kenn nekkul en sécurité bu dekkee luñ ko def la day wone ni rek sécurité moom dëkk bi kenn amu ko fi te ku ci nekk ci yow parce que kaala gi takk ci ndigg li mort naturel kay du la sànni ca dex ba. Mhm. ah bu dee loolu alaaji dafay gën a tiitalaate parce que da lay wane ni bàyyiwuñ sax imaam ba nga xam ne ma nga ca jumaa ja di jiite te yitteem bi yépp nekk subhaanahu wa taala mhm. su dee it loo xam ne mhm. accident la. ndogal yàlla ñëw na su dee it leneen la peut-être loolu. enquête bi dana enquête bi dina ko leeral ñu mën cee andil leen xibaar ci lii la enquête bi leeral mais pour l'instant dañu ne amuñu benn xibaar mm. ci lan moo waral faatoom gi lan ci xam daal alaaji mooy faatu na mm. fekk nañ ko ci biir ndox mi mu faatu kaala ga mu kaaloo woon takk nañ ko ci ndigg la mbaxane ba jugul ca bopp ba montur ba tekkeekuwul jaaro ba mu takkoon tekkeekuwul waaye yëre ba ca biir moom solu ko mm, loolu lépp nag dalay yóbbu ci ne mhm. peut-être am na foo xam ne def nañ ko ko laataa muy dugg foofu mhm. donc nag frère am moom catégorique na nee na faat bakkan la moom loolu la wax nee anam yu ñu gisee koor bi ak ni ñu gisee moom mu soloo ko jàpp na ne loxol nit moo fa jaar beneen imam bi ñu toftal ci moom ngeen njëkk dégg mu waxit dafa jàpp ne moom loxol nit newu ca maanaam njortul ne faatu faat nañ ko mhm. lu ci mënti am nag ku nekk sa kàddu rek nga yor. Mhm. enquêteurs yi ñooy leeral autopsie bi surtout surtout surtout. Mhm. mooy gindi nit ñi ci circonstance dëgg bi mu faatoo. parce que autopsie mooy wax ne par noyade la wala avant ñu koy dugal ci dex bi faatu woon na. Mhm. loolu lépp autopsie bi moon ci mën a andil ay gindi. mais daal li ñu mën a jàpp daal mooy imaam taal faatu na daal. ci anam yu lëndëm. anam lëndëm lool. lool. ñu bëri ñu ko wax. bàyyi na dépense dix jours ca nga wax yi moom bëri na ci loo loo après moom da nga am version lu ci mën a nekk. parce que bi mi ngi wax léegi naan dañuy wax ne dagg nañ bopp bi te loolu amul. loolu amul donc bu bu bu façon yi amee rek. bu la day demee kii yam ayca. Mm-hmm. Mm-hmm. mais comme ci enquête bi dem nañ ba xool gis euh, fi téléphone bi borné. Mm-hmm. peut-être bu ñu ay appelam dinañ mën a Euh, avant mu jógee ci jàkk ji di dem. Mm. Mm. am na ku mu waxal lan lañ wax ñoom ñaar. Mm. yooyu yëpp mën nañ ko xam. waaye li ñuy ñaan rek mooy yàlla na buur yàlla xare ko aljana. amiin it nag ñun ñu fi des yàlla may ñu mujj gu rafet. amiin mujj gu rafet rek moo ko ci yërmandeem jéggal ko ay bàkkaaram. wax na ko wax na ko ci harcèlement bi. Mm-hmm. nee na woo na ko mu ne maa ngi ñëw. ay mhm. eh, guddi guddi. Ah. si wax na ko ci enregistrement bi ñu teg léegi. Mhm. nee na ba mu julee tàkkusaan ba pare. ba dem këram ba mhm. tàggoon day dem kër frère am bi. ak fa mu ak këram moom matul cinq minutes de marche. frère soxna si moo woo frère bi ne ko imaam mi ngi ñëw sa kër mu ne ko waaw maa ngi koy xaar. frère bi bi mu toogee tuuti gisu ko da ko woo imaam ni ko maa ngi ñëw. mu toogaat ay heure woowaat ko imaam ni ko maa ngi ñëw. donc ñaari. matul cinq minutes de marche mais ay heure après gisuñu ko. mais nee na diggante bi jot na ko. matul cinq minutes de marche. Mm-hmm. mais mag ji mu ngi déggante moom après julli takkusaan bi. ba mu wëcc guddi gi. <laughs> après julli takkusaan dafa dem këram. tàggu jabaram ni ko maa ngi dem sama kër frère. jabar ji woo frère bi ni ko imaam a ngi ñëw. wax ji. Mm. jabar ji dafa bi ni ko a ngi ñëw. frère bi toog tuuti lu ci matul cinq minutes mu toog tuuti gisul imaam mu woo imaam imaam ne ko maa ngi ñëw mu defaat ay heure ay heure ci diggante bu matul cinq minutes parce que woote bu njëkk bi moom préciser wul ki wax sànq hmm. ay heure après jotaat na imaam imaam ne ko maa ngi ñëw mais après ba mu guddee ba guddi nag alaaji lan commencé jaaxle parce que dañu woote waat téléphone ba doon wuyu fay. ci diggante bu gàtt. waaw. ci mbokk wax seede diggante kër imam ak fi mu doon dem daal dix minutes daal maanaam doo fa def lu ëpp dix minutes mm-hmm. ki mu doon dem di ko xaar woo ko mun ko maa ngi ñëw mu toogaat waxtu war ko mun ko maa ngi ñëw mu toogaat waxtu war ko maa ngi ñëw. Mm-hmm. ay ci. deuxième imam bi maanaam ki topp ci imam bi te wax léegi. Mm-hmm. nee na bi ba mu ko maanaam laaj diggante bi mu ko njëkkee woo ñun mënuñu xam ñaata temps la def. parce que mm-hmm. dafa ne bi imam bàyyeekoo këram soxna si woo na imam woo na frère imam ne ko imam mi ngi ñëw ci yow. ci loo xam ne matul cinq minutes de marche donc la ngay supposé mooy laataa cinq soxna si woo na frère bi parce que su su su dépassé woon cinq minutes bi. danaan ko ndax imaam egsi na mais ci kii li mu wax dafa ne daf na ko imaam nee na mi ngi ñëw sa kër mu ne ko waa maa ngi koy xaar ay minutes après bàyyi foofu bàyyi foofu rek mu sedd maa ko ñaan ay minutes après alaaj alaaj déedéet alaaj bàyyi foofu rek xam naa bu baax li ma la wax ay minutes après moom waa ji woon imaam parce que xam naa cinq minutes yi mu jàpp moo ko indi ci kër gi gisu ko imaam ne ko maa ngi ñëw yaa ngi dégg ba mu ne ko maa ngi ñëw ay heure doxaat na ci nee na gisul imaam mu woowaat imaam jotaat imaam. imaam ne ko maa ngi ñëw. Mm-hmm. mais bi mu guddee nag ci la mënatul jot imaam. coow li yëpp mi ngi foofu. <coughs> imaam mm-hmm. man bëggoon naa xam imaam ak zone de captage. nee na dégg ki wax nee na hmm. diggante kër imaam ak kër frère bi matul cinq minutes. Hmm. Hmm. mais diggante kër imaam. ak zone de captage dafa sori. ah xëcc na. yaa ngi dégg. loolu la wax. maanaam daf la bëgg a wax ne mais daf la bëgg a wax ne di non daf la bëgg a wax ne dis non daf la bëgg a wax ne sama digganteeg alaaji moo gën a jege sama digganteeg Fofana. mun naa wax ni euh, mën naa tàggoo madame Diop ni ko maa ngi dem ci Mantoulaye. Mm-hmm. xam nga ma nga man fi ma dëkk fi nga dëkk mu awee beneen tubaab bi c'est même pas cinq minutes. Mm-hmm. ma ne maa ngi dem ci Mantoulaye. ñu tëll sama xel dem ci Ndiassé. Mm-hmm. sama benn xel bu ne féetu stade bi. ñu bàyyi Cheikh ma daal def demi tour dem Patte d'Oie après aw ci Ndiassé. fekk Ndiassé di xel xeli lawul ma naan lawal ni ko xaaral ma ma deux heures. donc fii sa gàll ma def cinq minutes mun naa def une heure de kon xëy problème. mais soo dee naan la wol tamit ki lay woo. nga ne ko la woo nga ne ko voilà foofu laa doon jëm. boobaa bu la mantu wooyee di nga nekk waaye sa kër laa doon jëm waaye dama doon naan si ab taay fii rek maa ngi ñëw. dama aw fii place Ndiassé. naan fi lewal mu teg deuxième. dafa dafa mais def ne ko rek maa ngi ñëw. dafa am kàddu gu mantu laa yàgg wax bu am solo. mooy bu ngeen di dem fi ngeen di dem deleen leen xamal. nii fa ngeen yéen ngi dem foofu bërëb sàngam. loolu dafa solo ndax ëllëg. loolu day dimbali nit. maa ngi dem ci kër ba Mbaye Karim mm-hmm. bu fekkee da ngaa dem nga war dem kër Mbaye Karim jàdd ci Mambay mm-hmm. nga waat san waat kenn mm-hmm. ni ko man kat damaa mujj jaar ci Mambay mais mais xam naa ci kanam danaa dem kër gi. ah ay information feeñal. parce moo moo moo lay muccal. moo lay muccal ba pare xamal fi nga jëm ci Cheikh ne ko wax naa sama waa ne maa ngi jëm ci Cheikh. Hmm? bu dee Cheikh am na idée noire dina xam ne. Hmm. nit ñi xam nañ ne ci yow nga jëm. nañuy tàggoo. mais waa ji ci témoignage hmm. daf ne ko maa ngi ñëw daal. loolu la dafa ne. maa la ko ñaan rek sa doom. may ma rek ngir yàlla. joyeux anniversaire Pape Sadio mu maam Binta Camara. ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ak wér la xéewal. yàlla lanket bi leeral waa trafic bu ñu fi nekkee alaaji alaaji alaaji alaaji parfois su ma bëggee nga ne enquêteur dama naan alaaji tey tës bi yow lañ may waxal mais suma suma alaaji sa enquête dama ko sa sa sa sa sa xóotal dama ko ragal te man dama xam fa nga jëm fa nga jëm nii man dama fa taxaw ba pare xam ni fa nga jëm te xam nga mooy loolu xam nga rek rajo la ñuy waxee amiin dëgg acca chimère nan trafic

Ah, voilà, merci beaucoup. sur la 89.7, nous avons en passant sur plusieurs points sànq rek ñu ngi ko dooree rond zone foofu la tey par euh, pour ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko wala sax ngeen sur les deux waa sacré euh, mun ngeen a jaar si point bi daal di wéy seen circulation bu ngeen ko dépassé aussi possibilité sur les deux voies nga xam ne mu ngi leen yóbbu du pour Sacré-Cœur aussi pas d'embouteillage malgré vous allez croiser les véhicules sortant du de la cité Keur Gorgui en 3 rond point Cheikh Béthio foofu rek sur les deux voies nga xam ne mu ngi leen rond point Mermoz jaare ko ci sel bi foofu la aussi aucune difficulté mais di rappeler aussi sur la VDN pour ñi la tey pas embouteillage précisément sur l'axe vers la descente du pont sacré aussi amul benn jafe-jafe donc vous pouvez passer par là Euh, pour continuer votre circulation sans perdre du temps si ak si boobu la Mantoulaye. tatatat ci suba ba léegi maa ngi bomb kër gi dara setu ci ah sonn naa daal dimbali ma ngir yàlla ngeen toog yéen tamit nag boobu léegi maa ko bet télé bi seen ngeen defaat ni yéen tamit nag boo bëggee kër armonia fiixi neex ak amoo ñaar dangay seet sell di feex loo soñu ko lay xool mooy fóote harmonia dafa noo ko lay lool teg si du jël sa temps ak harmonia sa kër daal fi nes nes yi harmonia xarit te noppal jeeg sa kër daal fi nes nes yi harmonia sa kër tey seet tey xeet neex ak harmonia sa kër day nes nes yi Samsung ñëwatina de ak modèle yu bees tàkk. Que vous recherchiez un écran plus grand pour regarder vos émissions préférées ou un grand espace de stockage pour conserver tous vos meilleurs souvenirs, les Samsung Galaxy A04s, A04 et A04e e sont parfaits pour vous. Te saa yu

orange money indeeti na xewal bu neex carte orange money buy ànd ak QR code ngir yombalati ay kiliyaanam seen dundin yore sa carte QR code orange money booy gànnaayoo teg si yor QR code bi nekk si application bi ndaw lu riis waaw waaw yónnee jot xaalis ci lu noppale gaaw te wóor taalal sama carte scanner mu jeex ma tawal gaaw ci point de vente bi la gën a jege ngir am sa bos doo ci fay dara ak opérateur boo mënti bokk mën nga ci bokk eh xanaa neexati. carte QR code orange money yëfu ñëpp la ak réseau boo mënti nekk. ma ne la weesu na kalpe. orange money est un service de orange finance mobile Sénégal. orange money. doy na waar de doy na waar lool li am suñu réew mi laahi ana tax na autopsie bi parce que defe naa ne ña nga ca waaw jël taxi bi moom tem mooy ñoo ko wax donc euh, fu mu nekk nii daa bëgg a wax de laaji moom Sadio mu Mame Binta Camara mm-hmm. joyeux anniversaire à toi waaw c'est wax naa loolu distance bi matul cinq minutes <laughs> te jël taxi loolu wax nañ ko. peut-être mënu woon dox peut-être. Mm-hmm. en tout cas lu ci mën ci am daal enquêteurs yi ñooñu koy gën a mën a xam. ñi ngi à foo ci dossier bi. Mm-hmm. parce que déjà ñoom balaa ñuy sóobu ci enquête bi rek il faut ñu def autopsie. Mm-hmm. pour xool ban anam la faatoo. noyade la asphyxie la. asphyxie la yooyu yëpp dañ koy xool ba pare. door xool fan la. weñ nga alaaji weñ nga fan la weñ nga def na ba pare moom. non parce que moom moom da ko njortu vu ah, ni mu gisee koor bi ni mu gisee koor bi moo tax mu njortu ne lii du jëf-jëfu nit parce que boo sukkandikoo ci liberation nee na la koor bi amul benn gaañu gaañ. nee na loxo bi nee na loxo bi moo am ay lakk-lakk te dafa njortu ne mm-hmm. bassin ba dafa am acide lakk loxo bi mais man sama problème mooy kanam gi. kenn précisé wul lakk yi ci loxo bi. kenn précisé wu ko ci kanam gi. te ba ñuy gis néew bi kanam gi dafa dëpp ci ndox bi te kanam moo gën a sensible loxo. donc bu amee lakk-lakk boo xam ne acide moo koy def. yére ba mu jiitaloon lu ko loolu yëpp wallaay ko takk ci ndigg li ah, mais lakk-lakk boo amee surtout cheikh ci loxo. te kanam gi dëpp ci ndox bi man jot naa ne kanam mooy gën a am yàqu-yàqu ko loxo. Mhm. parce que loxo day tegu. te kanam moom dafa dëpp ci ndox bi. carrément kanam dafa diis day dugg. moo gën a oyof sax leeru kanam moo gën a oyof. Mhm. moo gën a sensible euh, donc euh, loolu aussi peut-être enquêteurs yi. enquêteurs yi nañ ci nañ ci kii <laughs> nañ ci sax bu baax. wala autopsie bi bu gé bu autopsie dina génn. nga xam lan moo ko rey. Hmm. asphyxie la. dëgg la bu dee noyade la xool biir biir bi dina am ndox. Hmm. Hmm. bu dee euh, cardiaque la. danañ xam la moo ko rey. da koy leeral bu génnee rek. da lay teg ci yenn piste yi. déjà nga commencé sa enquête nag su nekkee ni mort naturel la ñu xam ne mort naturel la. Mhm. su nekkee ni leneen la aussi ñoom ñu ubbi ci enquête pour pour pur jéem ko leeral. en tout cas. ñaanal alaaj doo wax ñaanal imam. yàlla xaare ko aljana comme ni ñoo Cheikh. atte ko ci yërmandeem. lépp loo xam ne it doon na ko wax ci alxuraan yàlla fayee ko ko ci bësam bi. yàlla mën na lu ko raw yàlla na ko defal may njabootam surtout nag xolu muñ. Mm-hmm. ndax xam nga dafa metti faatu goo xam ne. Mm-hmm. dafa nekk ci daanaka journaux yëpp. Mm-hmm. daanaka euh, réseaux sociaux yëpp. télévision parce que waa loolu la. alaaji xam nga imaam alaaji imaam déjà réeram bi rek dafa nekkoon problème. parce que imaam la. ku ñu respecté nga. Ah, ça fait ah, léegi imaam bi bu ñu ko fekkee ci ndox alaaji imaam da waaw imaam dañ ko respecté. Hmm. da ko dañu ko jox cër da ngay supposé ni sax nit bu doon dem di agressé ci mbedd mi sax di fa bàyyi imaam bi jiite ju julli. Hmm. donte mën na ba a nekk pour pour vous dire rek. Euh, ban ban ban position waaw kay ban dayoo lañ jox imaam. Hmm. fi Sénégal donc bu faatoo ci anam wi euh, ñëpp di ko wax. foog nga masaw ay mbokkam ci li ñu nar a dégg ci xibaar ci li ñu nar a jànkonteel ci li ñu jëm mm-hmm. lu métti ah Alaaji métti laa lay wax nii. mi ngi wax naan mi ngi wax naan imaam méritewul lii. imaam li nga wax naan toog mi ngi koy wax imaam méritewul lii. daa a toog mun a toog génn na fi ñuy dematul cinq minutes de marche. Mm. am na ku ne gis na mu jël taxi. mu jël taxi. am na journal bu wax ni gis nañu borne nañu portable mm-hmm. xamante ni bi xëy na du ko honoré wa en tant que mais foofu gisuñu ko fa tamit. gisuñu ko waaw ah, kay. gisuñu ko fa moom gisuñu ko fa téléphone bi. waaw ah, kay gisuñu ko fa gisuñu téléphone mais borne bi. téléphone bi borne na fa donc imaam mën na fa bañ sax dem. imaam mën mm-hmm. bi ñu fay borne sax téléphone bi. Mm-hmm. fan la imaam nekkoon. est-ce que non non. woo woote yi après bi ko borne que appel. Mhm. waaw non téléphone bi day wax après appel yi dina juste téléphone bi day wax. waaw téléphone moom dina wax lu bëri. day wax de parce que ñu joué lii nii seen jubluwaay ak seen xemmeemteef mooy lan na lëndamal xel ci ni imam fu mu nekk mu fi bàyyiwoon noonu. gàttal xel. parce que tey boo gàttee boo gàttee xel tuuti boo nekkee benn nopp. Mhm. mën nga ni imam moo bàyyi ba fan fu mu nekkoon. Mhm. yàlla xam na ni man toujours damay invité insulté ki dee. gis nga tey ki ko gis mu jël taxi. ki nu du mërt. Mm-hmm. ñi annoncé départ am ñu borné téléphone am. ba ñuy taxaw di insister ci auberge lañ ko gis. ba loolu. ba loolu. parce que mun nga ko gis fenn te doo ko préciser. Mm-hmm. ngeen baal ma nag mais jumaay jumaay jàkk yi des fois dafa ay xeexante. dañuy doyloo seen bopp. maanaam mm-hmm. dañuy wallahi man laa bi ba ci cëppaandaw ji. Hmm. la ko bëgg nga xam ñi. dana jëf fi ñu ko yaakaaree woon. yal na ko yàlla xaaree aljana rek. en tout dina de. bàyyi ñu nekk fi di daw. di suñu biir. di iñaanante. Hmm. di soxorante. di jëfante suñu diggante yu ñaaw. di rayante. di agressante. di sàccante. di jëwante di xastante. lu mën a ñàkk di waxante wax yu bon di génnee sunu ay bu moroom. moom ci lii la ñu ba de lii rek la ñu baax. na noppalu jële ci di ay waxtu. ci jaamu yàlla goo xam ne saxuñ ci te ñu digal ñu ko. ci lii la ñu baax ci lii xoolal lii la ñu ba moom. taarixu Sénégal moom mën ca dëgg xoolal moom mën ca dëgg. taarixu Sénégal. fii ñu bàyyi. ñaana. war bokk. nañ ci ña waroon maam yi ba ña waroon maam i sët yaa ngi fi. baax na insécurité bi moom. baax na foo jaar ba mucc. Mm. kon te bàyyiwuñu xale yi bàyyiwuñu imam. Mm, mm, alaaj ñaanal. imam kay amul benn danger moom xal xale yi nga xam ne ñu fekk faat leen te parce que amul benn danger. alaaj ñaanal. ana danger bi ñaanal. dëgg. amiin amiin amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin te sàmm amin amin sàmmal nu njaboot gi. waaw may nu mujj gu rafet. amin amin ya allah. moom daal hmm. ci tabaski. ci allah yaa ñu ko jaral yow Zik FM programme yu neex a neex sans dilemme bumbu dagan lool ànd ak système jël nañu sa logo def ko suñu emblème yëgal ko waa Chelem ak waa Siri Now you're Money FM Zig FM gis nga boo doon jigéen mani la je t'aime je t'aime boo doon examen am nga BFM fi ba mati salem yaay suñu kaasu lem waaw waaw moo tax ñu taxaw bind ci yow poe ñu sonal benn jàpp benn jàpp benn benn daal. Zik Feeling jëm kanam Rafik News la voix internationale. hip hop styling Jolof ba ñu sondee wàccu ñu bareem. yaa ngi wigaan Zik FM yaa bari FM Zik FM. ko jaral yow